alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihil xaatimi sayidina muhammadin nasiril hadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim mbokki jullit yu tedd yi fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon yow ci wàll waxtaan yëpp passé rek ci jëf yu bari yu saaba yi def te yonent bi diglewut ne def leen ko waaye ànd ak loolu terewut ko ñoom ñi sañ koo def te yonent baa ngi dund te waxut leen ko ak yiñ def gannaaw bi yonent bi génnee àdduna kibaaru saxaaba yi def ko ca Aboubacar ca Seyduna Omar Seyduna Ousmane ba ci Seyduna Aliyu ma dëxaloon la nag ne danaa wax ak yow ci taabiina yi tamit biddaa yiñ jëf te yonent bi mosu koo def saxaaba yu ñu wutu sax mosuñ koo def ñoom ñu am fitu def ko ndax yëg giñ yëg ne yonent bi daal terewut ko te lépp luy loo xam njariñ yonent bi wax na ne nañ ko def lépp luy loo xamul njariñ yonent bi tere ne nañ ko baax kon la mu waxut dara daal daraa ca néewut dara moo tax la ca dara néewut a tax waxut ca dara suñ ko déggee woon noona rek ni ko jullit ñi déggee woon li ko doree ci jamono yonantu bi ba ki juróomi juróomi téeméeri at jëm ba ci gàttaay gi coow jeex waaye gannaaw si rek juróom benni téeméer ba fii ci la coow ci ay détails yu ñàkk solo yooya commencé xew kenn ku ci nekk di daal sa morom di xéeféeral sa morom di tàbbal sa morom safara di génnee sa morom ci daairatul imaan te loola lépp lu baax lu bon la euh, li amoon solo daal mooy fexe ña bokkutoon nu ñu fexee bañ bokk rek waaye ñi xas bokk daal di leen jéem a génnee mbaa ngi leen di ayibal dafay ragal loo sax ñi bokkutoon pour ñu bokkati yooyu yëpp amul benn njañ kon ci jamono yi na yi ci lañ sos bi daaxab tombu alquraan nga xam ne ku ñuy tuddee xajaaj ibnu yusuf tuurkatu deret bu doy boobu waaye mën nañ koo limal lu baax lim def mooy santaane ci mbooleem dëkki jullit ñi ci lim xilifoon ñi nga xam ne yàlla may na leen seen xam-xam ñi màcc laaw ci man ko mu santaane leen nag ñu jublu ci téeréeb yàlla ba ku ñuy tuddee abu aswad addu aliyu songu tomb ya tabaarakallaahu maska ya songu sidda ya ak la ca xaju lépp te moom moomu mooy ki ko santaane def na lu bon ba tàyyi waaye fii de def na fi lu baax lim def noonu te le bidaa la naka noonu mu santaane Xalil ibnu Ahmad moo indi joxoñ yi indi xisib yeeg mandarga ya ak rubox yeeg sumun yi yooyu yëpp ak aayaat yi yooya mandarga yooya nekk ci tey bañ man koo xàmmee moom moomu moo ko liggéey moom Xalil bokkut ak nag Xalil mi ngeen xam muy liggéey ci fiq du moom waaye bokkut ak sa xalil mi la xam mu liggéey ci wàllu arut su ko defee bokkuñu dañoo dajee rek ci ay tur mu liggéey liggéey bu rëy bu rafet boobu jullit ñëpp sant ci xajaaj donte le yàgg naa def lu bon ba tàyyi neenal na bakkani jullit ñi ba tàyyi waaye loola bidaa waaye biddaa la boo xam ne ala kulli haal sax bu la ne nga ne waajiba dañ koo war a def buñ ko deful rek te ña ko man danañ def bàkkaar bu rëy ndax su boobaa ñu mujj ñi duñ xam fan la ñuy mën a sukkandiku ba mën a teg seen tànk ya mën a jàng alquran su ko defee kon loolu moo ko def nga gis tamit ku mel ni tabaarakallaahu Omar ibnu Abdul Aziz ma biddaa bi def li fi yonantu bi nekk yépp xutba ak xeet yile yonantu fa daan julli ba pare door a xutba tabaski korite moo Aboubacar dafa daan julli ba pare door a xutba Seyduna Omar noonu Seyduna Ousmane Seyduna Aliou waaye moom bi mu toogee ci gàngunaay naay gi jiite jullit ñi diira fanweeri weer ak ya ca teg yam fi def dafa daan xutba moom ba pare door a julli lu ko waral dafa gisoon ne nit ñi daal su ñu jullee balaa commencé xutba ga rek ñëpp daw bàyyi ko fa mu fay wéet su ko defee nag mu ne kon nañ jiital xutba gi ndax julli gi mën a tënk nit ñi ñoom ñi mën a déglu xutba gi loolu Omar ibnu Abdul Aziz mooy ki ko njëkk a def nga xam ne kon nga xam ne dafa defee neneen rek waaye defut leneen naka jekk jullee ngi fi naka ñetti xutbaa ngi fi bu jiitalee lee ca lale ngir dar waritu bi ko waral tamit dara nekku ci fa defee neneen rek waaye andi na ñaar yëpp kon demeet loolu dara nekku ci bu ko dugal mukk ci kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar te mën naa am xàmmewu kullu ak kulli yu te danaa ci ñëw su boobaa tamit tabaarakallaahu du sotti du baax waaye ànd ak loolu lépp ñi contour sax di indi bidaa yi di tudd hadis yooya ñoom ci seen bopp créé nañ fi ay bidaa yoo xam ne du wutoon luñ xam ci jamonoy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngi koy def loola bokk na ci salaatu tahajjud di ko julli mbooloo ca fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ca madinatul munawara ak ca tabaarakallaahu makkatal mukarrama ak ci yeneen dëkk yi fanaanoo di ko julli ilimaan di leen jiite ci mbooloo waaye waaye loolu xam ngeen ne yonent bi defut ko woon Aboubacar defut ko woon ci jamonoy Seydunaa Omar lañ ko la ko def ba mu tuddee ko ni'matil bid'atu haadihi te ñoom ña ngay roy loola continuer di ko def xamul menn réew ci réewu jullit lu danga fekk mbooloo muy def loola kon kuy def bidaa waroo kontur ku koy def te loolu gis nañ ko fu nekk kon loolu jër sa weddi waaye boo ko dugaloon xoyofal ko rek ne defe neneen la waaye du def leneen ndax julli guddi gi lépp yàlla digaloon na ko yonantu bi yaa ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan te loolu guddi gi yépp la ko wax dàqul ko ci weeru koor rek yow boo ko dàkkee ci weeru koor rek ngaa defee neneen waaye defoo leneen soo ko dàkkee ci fukki fan yu mujj ya ngaa defee neneen waaye defoo leneen soo ko defee ci mbooloo ya jàkka ya bëri léeg-léeg ay xale yu mësooru sax di ko jiite dagan na ndax xale bu mësooru mën naa jiite la ku mësoor loolu mooy bu Malik su boobaa nag kon tamit defee neneen rek la ñu xoolee falee ko noonu kon dara du ca ne ñaareel bi daje gi ñuy dajee ca masjidu rasul ak masjidu euh, haram ñaar fukki fan yaak juróom ñaar di tëj kaamilab alquran bi ñi tasaa dagaaloo fa di julli léegi-léegi ñu naan kafe tasaare tàndarma yi waaye waaye loolu yonentu mosu koo def nag donte las ba mu fiy nekk la tàndarma gënoon a bëri ca madinatul munawara waaye ànd ak loolu lépp taxul mu def ko nag ah déedéet nag waaye tay loolu mujj nañ mel ni dafa bokk lu ñu yoonal lu ñu yonent bi digle sax lañ mujj soppeeku fu mel ni te yonent waxut ko diglewut ko waaye ku ko def ku ne jàppal ne ngaa defee neneen waaye defoo leneen ndax xam na ñu bëri ñu jàpp ne laylatul qadri fan booba la te wax dëgg yàlla comme laylatul qadri xayru min alfi sahri tanazzalu malaikatu wa ruuhu fiha ba ca xataa matla'il fajri nga dàkk ko di ko defee noonu ngaa defee neneen waaye defoo leneen kon nag yow mi nekk ci lii looy contrer keneen ka lam nekk ta nga ne yonantu defut ko waaye kenn ku nekk na maslaa ca lam nekk rek ñu déggante su ko defee ba ca tegu mooy xutba yi tay foo ca dem ci ñuy contour lu mel noona ña ngay xutba ci yeneen i làng di jël xutba di ko def ci olof wala ñu koy def ci français wala ñu koy def ci anglais wala ñu koy def ci weneen lang tabaarakallaahu te yonantu beeg lim fi nekkoon dégg na lang yëpp yonantu bi déggoon na xolof dégg na séeréel dégg na sarakule dégg na manjaago paase woon na ko waaye moom bu yónni woon nit sax ci am réew kam yónni bu demee ca réew ma day dégg lang waa réew ma werante am bu fa bàyyee ko ndax dana ko fàtte ñu ne déedéet yàlla du may di nangu ñu ne ah kay dañ koy dindi ndax mission ba jeex na waaye yonantu du yónni nit ñi koy làppatoo ku meloon noona dégg lang yëpp ànd ak loolu ba muy julli am na ñu fa nekk la jaxasoo ci eh, jullit ñi ñoo xam ne dégguñu woon arab ñi perse lañ bàyyee ko ñi bàyyee ko Éthiopie ñi bàyyee ko Rome nekk ay romain waaye ànd ak loola lépp lam daan xutba lépp arab rek la ko daan def mosuñ dégg mu xutba ci beneen langue wudul arab Sayyiduna Abubakar mos ta xutba ci langue wudul arab te booba jullit ñaa ngi commencé ubbeeku ci réew mi fu ne rawatina Omar moo ubbi dëkk yu bari ñun dégguñu arab ba dugg Italie dugal fa lislaam dugal ko parasta boo xaajoon adduna bi ñeenti xaaj ñeenti xaaj yëpp omar a ko ilif ñeenteelu xaaj ba muy ruboox ba yëpp omar a ko ilif ñu bëri dégguñ arab ànd ak loola lépp bu doon xutba arab rek ñoom yóbbu gouverneur bu ñu xutba arab rek jëlal tamit Seyduna Ousmane ba ci Seyduna Aliyu ba ci Muawiya moom mooy ki njëkk a xutba toog ndax dafa woon jàngoroy tànk mënta taxaw waaye xutba moom taxaw lañ ci xamoon ndax dañoo waxoon yontu ko tarakuuka qaayiman waaye moom bu daan xutba day toog ngir feebaru jàngoor ja nekkoon ca tànk ya su ko defee waaye ànd ak loolu lépp arab te léegi ku ne gis na ne ñii bi daaxal ni ngi ci lu bari seen xutba yu bari tey la place ba laaj rek lañ koy def boo gënee imaamu Malik d'accord ci Malik nee nag xutba luñ ko mën a def lu dul arab xutba ga yàqu na te xaaj la ci jumaa ji bu yàqoo yàqaale jumaa ja ñu ne ko bu fekkee mbooloo ma koy déglu dégguñu araab nag mu ne wa in kaanatil jamaatu man ci arab rek lañ koy war a def loolu la xalil andi loolu la Maalik gëm mu nekk ci mu dawana mu nekk ci mu watta loolu la gëm demeet boo demee ku mel ni Shaafi'i moom dafa taxaw dafa ne su fekkee ñi ngay wax ak dégg nañu arab arab rek nga war a xutba buñ déggul arab mën ngaa jël làng wañ dégg Abu Hanifa moom dafa ko tinki ma fa moom sam dépassé da doon neex rek kon ba discours la euh, langue wala neex nga joxe ko ca noonu la ko déggee Malik ne xutba waxut ak nopp mais rooxu lay wax ak comme baat yi nekk ci julli yëpp ni ñuy waxee ak rooxu Fatiha lay wax ak Fatiha la muy wax boo ko waxoon julli ga yàqu na boo taxawoon nga ne lan nga ne bisimillahi sos na ma sama wax ci du turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa kon bépp mindeef ci àdduna bi te loolu lay tekki julli ga yàqu na waxut ak loola sami allahu liman hamida yàlla dégg na ki ko sant lay tekki boo ne ma yàlla dégg na ki ko sant ki julli ga yaa ko tay julli ga yàqu na subhaana rabbika al-azim wa bihamdihi tudd naa sell ak buur bu màgg ba waaye waaye boo ko waxee julli ga yàqu na te de loolu donte loolu lay wax ndax kat yonantoo noon sallu kama raaytumuni usalli te mosuñoo dégg mu dugal ci julli lu dul làng warul arab Malik timi mu ne comme xutba gi dafa remplacé bi fatiha di waxeeg roox saar di waxeeg roox sabbal ya di ko waxeeg roox ak takk takbiraat ya di ko waxeeg roox mu ne xutba ga noonu la ñëwee di ko waxeeg roox rooxu lañ bëgg bu taataan ko waaye waxuñ na ko noppu taataan moo tax mu ne kon luñ ko mën a wax lu dul arab xutba ga yàqu te bu yàqee yàqaale jumaa ja ànd ak loola lépp lii la Maalik gëm wax li Saafi yu gëm wax naa li Abu Hanifa gëm ànd loola lépp tëréwut tey ñu ngi xutba yeneen i xutba ci làng yeneen yu dul arab ànd loolu lépp kon te ñoo gën a yaatal rek wane ne ah ñu de dañoo defee neneen rek xutba ngi fi woon daal buñ ko waxee ci weneen làng wu dul dañoo defee neneen ah mbaa sax du soppeeku def leneen demeet donte ne waa Arabie Saoudite seen borom xam-xam ne da ngeen jox ca fatwa waa maraw yi dagee nañ ca yëpp dagee gis naa fatwa yi fatwa yi naa ko boo demee ci ibnu taymiya ak yam ca def boo demee ci maanaam tabaarakallaahu euh, euh, boo demee ca fatawa muasara da nga ko ca fekk yëpp gis naa ko ak lañ ca wax lépp kon yooyu yëpp dañ ko cee indi muy ay biddaa yuñ xamutoon ci jamono yonent te yonent waxul fenn wax leen ko ñi xam fitu di ko def kenn waxul leen ca dara kon ña xam fisu la leen boy ñu koy def te yonentu waxut ca dara te ñoo kenn ko ne maslaal sa morom jàmm jàmm na ñooy ñu fexe ñu bokkut bokk la ca tegu tamit xoolal tey li fi yonentu bi nekk ak saaba yeeg borom xam-xam yi ba ci juróomi téeméeri at ci gàddaay gi kenn mosta jël taw tawhid di ko def ay xaaj daan tawhidul uluhiya ak tawhidul asma wa sifaat tawhidul rububiya di ko def ay xaaj ban caa jaaree mën a génnee ñenn ña ci diine ji man dee na xéeféeral mosta am mosta am gannaaw si gi rek ne yooyu yëpp sosu waaye mosta nekk luñ xam yooyu yëpp xamuñ ko woon kon nag li fi des rek yiñ dëppoo nañ ci ànd yëñ dëppoo nañ ci maslaa boo demee tey ci Arabie Saoudite seen borom xam-xame ñu yoonal maanaam si waaju misiyaar ànd ak la ca Malik wax xam ne moom sippu nikaaxul tax rek la muy sëyëb contrat nga sëy jigéen nga affecté la fenn ci place dara ñaari at laa fa nar am takk soxna si namuñ ci bu ñaari at yi jeexee sëy bi jeex Malick d'accordul ci ànd ak loolu lépp tey ñu ngi koy def seen borom xam-xam yi di ca fatwa kon nag moom moom tey ne ñun dañ fay nekk di weddi rek l'islam bi di gën di arrière rek ñun ci suñ biir di xeex rek di waxante lu ñaaw rek te ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi noonu la ko gisee tey ba ne ñu ña tarde ci yonantu ba ña fi nekkoon di gàmmu tey ñoo fi gën a naat ñoo fi gën a def nangam ak nangam kenn gënul leen a mën a pratiquer diine kon nag ala kulli haal décrété gàmmu ñi di ko doxal ren lañ ko commencé donte le bëri woon nañu naan nëbbu seen saal di gàmm waaye tey sañ nañ koo def manifester ko kenn du ko nëbbati kon tey koy werante waa ngi bëgg a jeex muy tekki ne dëgg-dëgg suñ mag ñi neexu ñooy xëy de suñ mag man ngaa dem fu ñu demut boo ñëwee ñu wax la fa loo xamut kenn gënu leen a xam diine kenn gënu leen koo bëgg luñ ca jël ba jël ko di ko jëfandikoo rek wallaahi bu yonent bi dekkee woon ak saxaaba yi félicité leen ca lépp luñ won gannaaw ci diine ba ne lii ñun tànnuñ ko rek xalaa kulli leexal dafa neexul lu tànn ko ku leen ko tollal ma cër yiñ am ci yàlla cër yiñ am ci ay makaama ci yàlla lijaaba giñ am ku suufaa yi leen yàlla jox maqaamaat ya leen yàlla jox cër yu rëy ya leen yàlla jox kenn xamut niñ toll te loolu lañ ko defee jëfee alkitaab ak sunna kenn gënu leen koo xam kenn gënu leen koo bëgg ba tey tey ñoo am ci loola ñee nekk fa ñoom di contre ñay contre contour ña topp yoon wa nekk ca rek mais lu ngeen def ci lu baax dañ ko def danañ def lu baax lu ngeen defut su boobaa kon nañu bàyyi contrante bi yaatal dënn yi lislaam dafa yaatu yàlla mi ñu ko indil dafa yaatu kenn warta weddi nit ñi ci loolu maa ngi wax lii lépp rek ngir bëgg a leeral ngir bëgg a leeral pour ñëpp mën a nekk benn mën a àndoo di sellal diine ji lañ lañ dëppoo ñaand ca lañ mënta dëppoo tabaaraka laaw ñi maslaaj ca tasaaroo ak ñàkk wuute dégg ni du fi jug loolu mën ngaa wax ne ba fi yonantu bi génnee àdduna la saaba yi tasaaroo kenn ku ci nekk ak fa nga jublu su ko defee nag jub tasaaroo googa ci réew yi ñooña jàng jàngee diine ca ñooña fala tasaaroo gi amee ba léegi waaye nag ànd ak lépp mosta jur benn fitna ci seen diggante mosta jur benn fitna mosta am kenn ku ci nekk dangay wax la saafi yi waxoon li ma nekk ni jàpp ne njuum dëgg la mën naa nekk njuumte de li sama morom nekk ne jàpp ne moom tamit ma jàpp ne moom njumtu ne mën naa nekk dëgg de bu ñëpp xoolee mbir ya bët booba rek lépp dana mujj oyof tabaarakallaahu lépp dana mujj yomb dëppoo ci lenn manta ne wala yasaaluna muxtalifiina loolu moom mooy li fi ne rek manta manta manta manta ñàkk waaye nag na xoyaf ci jamono yonent bi saxaaba yi nañ ci menn masala masala yi su bëri sax wuti nañ ci benn rek laa ci tudd benn waaye fase na soxnaam ne ko dellul sa kër baay ba jamono irjii ila daari abiki hatta hinin mu dem ci aboubacar wax koo ko aboubacar ne ko fii ba ñeen fukki at doo ko mën a jëlati waaye bu ñeen fukki at dee jeexee mën nga koo jël mu sol lam ne bu ma fekk na yaqaar ñeen fukki at ma dee mbaa mu dee ñi màggat ndokk xam na fi ñu des mu dem ke Seyduna Omar Omar ne ko àllaaxira de wóorut ma mais àdduna mënutoo koo jëlati mu ne ko ndokk yow kenn nekkoo fi dem ci Ousmane Ousmane ne ko déwén mais mënta nekk ren ah, loolu de moo gën a yaa gën a yombale ñaar ñi ma bàyyi te gën yomb gën a gën a yomb ca kanam yomb gën a gën a yomb ca kanam xam na ko ma dese dem ci Aliyu Aliyu ne ko boo yàkkamtee ba egg ci lool balaa suba gee jeex demal nga jëli ko. boo yàkkamtiwut baaral xaaral ba ngoon nga dem jëli ko waaja tiit menn masala ñeenti tontu yu wuute bàyyi ko ci ñeenti borom xam-xam yoo xam ne ñooy yaakaaru yonantu bi ci wuutu ko ci gannaawam waaja dem ci yonantu bi sallallahu alayhi wax ko ko ne ko ñeent ñi nga xëpp yaakaar tabaarakallaahu wuute nañ ci menn masala mu tudd ko ko yonent bi ne ko du a tontu demal nga xooleen ñoom ñëpp mu xooleen ñoom ñëpp ñëw Aboubacar toog Sidna Omar Sidna Ousmane Sidna Aliou Aboubacar loo ko wax mu maa ne ko dootoo ko mën a gërës lii ba ñeent fukki at foo ko teg mu ne ko ci alquran moo ne ko irji'i ila daari abiki hatta hiin te maa jàng ci alquran hiin it tekki ñeent fukk yaa ñu ko firil hal ata alal insaan hiinun min ad-dahri hiinun ñeent fukk lay tekk moo tax mu ne ko ñeent fukki at. ne ko yee wax nga dëgg yow nag mu ne ko maa ne ko xala xiraa wóorut ma mais àdduna moom dootu ci mën a jëlati mu ne ko foo ko teg mu ne ko ci alquran mu ne ko mu ndax moo wax ne dafa ne ko irji'i ila daari abiki hatta hiinin te hiin ci alquran maa ko jàng abadan lay tekk yaa ñu ko firin tamatta'u ila hiinin ay ila abadin moo tax ma ne ko abadan doo ko mën mu ne ko yow wax nga dëgg nag mu ne maa ne ko déwén waaye du mën a nekk ren waaye déwén moom mën na koo jël su ko defee nag foo ko teg mu ne ko ci alquran maa ko jàng yaa moom dafa ne ilaa hiinin tama jàng alquran hiin muy fekk déwén tuuti ukalaha kulla hiinin ay kulla sanatin yaa ne meññatam garab ya nekk aljana xat mu jot dafay meññ yaa ñu ko wax duhun meññ ren di tëbal déwén ba ñu xeggee ci aay ji jàng yaa ñu ko firilee noonu moo tax mu ne ko moo tax man kulla xiini man kulla sanatin ko wax nga dëgg de yow nag Aliou yow Aliou yaa ci des loo ko wax mu ne maa ne ko comme suba gi jeexagut bu yàkkamtee na ko jëli bu yàkkamtewut mu bàyyi ba ngoon mu jëli ko ah Aliou foo ko teg mu ne moo ne ko irjii ila daari abiki hatta hiin ah xiin ma fekk ko ci alquran muy tekki suba ma fekk ko ci alquran muy firi ngoon fa subhanallahi xiina tumsuuna wa xiina tusbihuuna ay waxta duqulikum fi sabaayi wa waxta duqulikum fi fi masaayi moo tax ma dóor ko ci ne ko suba gi rek mbaa ngoon gi boo ko ci jëli baax na xaa waaja nag xiimu tabaarakallaahu yonent bi xool ko xool ñeenti saxaaba yi xool waaja ne ko asxaabi kan nujuumi bi ayhi miqtadaytu mihtadaytum sama saxaaba yi ay biddiw lañ koo ca roy jub koy roy nag mu ne ko maa ngi ci àlliyu su ma fiy jugee koo jële sama soxna si Abubakar ñeent fukki at balaa booba ma demba mu dembaa ñu màgget abadan xamut dayo déwén feeg feeg déwén lu ne xaj na ci ren ak déwén lu ne xaj na ci waaye tay laa fi jugee koo dem jëri ji ko ñoo ñooñu wuute nañ waaye taxuñ kenn tabaarakallaahu boo ci jaasi di xeex ak sa morom dellu ci laa tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabi ci diggante Omar ak ak ak ak ak Seyduna Aboubacar seen wuute ba taxul mu jur benn fitna waaye nag wuute guy jural fitna sa moromam julit carrément nga ñëng ko takk fiiral xéeféeral ko génnee ko ci daayiratul imaan ànd ak la ca yonantu boo xam ne ku wax sa mbokkam julit ne ko xéeféer nga yéen ñaar kenn doon na ko ca moom ma nga ko wax bu ko doon rek yow mi ko wax yaa ko doon ndax yi da taxaw ci maqaama bi yàlla di xàtte mel ni nga xam li ci biir xolam ah dem bay bagante lakkante ay jàkk di sullihante ay nit ñu dee dem ci ba ay doom ak baay di ca tonguwante mënuñoo dëkk ci kër dem ba doom di xeeb diine baayam di xeeb alquraani baayam di xeeb maanaam jëfandikoo baayam ak ay mbokkam yooyu yëpp fitna la nañ ko bàyyi teg ko ci suuf te xam ne diine ji lu yaatu la wuute lu fi bari la waaye ànd ak la muy bari lépp mosta taal fitna tabaarakallaahu ci jullit ñi ndax li ko waral yëpp wuute gi moom laa lay wax nag pour mu leer nga xam ne wuute lu fi yàgg la bi yonent bi génnee àdduna rek saxaabaam yëpp dañoo tasaaroo ci juróom-benn réew juróom-benn dëkk daal ñenn ña dañoo dem Madina dëkk fa ñenn ña nekk Makka dëkk fa ñenn ña nekk Kuufa ñenn ña nekk Basra ñenn ña nekk Misra ñenn ña nekk Saam foofa la école yi wuutee nag école yi ngay dégg Maalik ak Abu Hanifa ak Ahmad ibnu Hanbal imaamu Shafii yook ñeneen ña ci xaju yëpp ci école yi wuutee yi ci lañ jëlee moo tax ñuy wuutee ci furoo yi buñ la laajee ñu nekkoon Madinatul Munawwara gi yonantu bi nekkoon mooy Aboubacar fa la des ba ne foofu la génn àdduna mos a toxlu Sayyiduna Omar fa la des mos a toxlu Sayyiduna Ousmane des mos a toxlu demeet Aliyu fa lay mujj si ibnu Mas'ud Abdulaahi ibnu Abbas Sayd ibnu Saabit Sayd ibnu maanaam Abdulaahi ibnu Omar ibnu Xataab Aysatu mi nday jullit ñi Abu Hurayra Abdulaahi ibnu Omar ibnu Laasi ñi la ñëpp bi yonantu bi génnee àdduna tabaarakallaahu màkk madina lañ nekkoon di fa fite di fa xatte gannaaw bi yonantu bi génnee àdduna foofa nag ñu nekkoon fala ay masaanid génnee muy masaanidu matil arbaa mooy musnad yi nga xam ne ñeent kàngaam yi ñoo ko def ñu ku mel ni tabaarakallaahu Sayd ibnu Saabit nga xam ne moo ci ëpp ay fatwa te mu nekkoon Madina nga xam ne booba nga nekkoon Madina ñii ma limal la ñu des fa bokkoon na ki nga ca gën a bëri ay hadis Abi Hurayra ak Abdullah ibn bokkoon nañ ca ci seen diggante gii nag Saydu ibnu Saabit nekk ca ci diggante ñii nag ci la imaamu Malik fonde ngirëm ma moo tax nga gis la gën a wér ci ay solo mu ne jëlee na ci Naafi mu jëlee ci Malik mu jëlee ci Abdullah ibnu Omar ibnu Xataab boobu mooy bokk na ci riwaaye yi gën a wér ci ci ci ci riwaaye imaamu Maalik yi ci fii la nekkoon ci biir ab bi fa la nekkoon moo tax nga gis xuuteem yi yam jël ak ña nekk màkk yañ jël xuutee kon ñi ñoo nekkoon Madina ah ci seen biir nag seen jeexital gañ fa bàyyi ci seeni masaanid ci la am ci la imaamu Maalik fondé ngiram ma nga jël tey tamit ña nekkoon Makka Abdullah ibnu Abbas Makka la nekkoon Muaz ibnu Jabal Makka la nekkoon su ko defee nekk fa di jàngale Muaz di jàngale Alquran Abdullah ibnu Abbas di jàngale mbooleem xeeti fànnay xam-xam yi deme ni tafsir hadis fiq usul luga naxu di jàngale maani ak bayaan ak badiya bu ko defee Abdullah ibnu Abbas mi nag kéemtaan la woon ci kéemtaani yàlla yi ci xam-xam kuy jégg day xoon maanaam ci xam-xam la ndax moom mi Abdullah ibnu Abbas moom la yonent bi tuddee xibru xibru haadihi l mooy fóodee moom la yonent bi xooloon ba ñëw mu ne ko ŋaxal mu ŋax yonent bi ñaan tafli te ñam nga neew yàlla yàlla nga ko déggloo taawilu alquran ne allahuma faqihu fi diin wa allimhu taawila moom mooma nag ku bëri ay taalibi la taalibeem yooya Saïd ibnu Jubayr ca la bokk Ikrimatu ca la bokk mi nga xam ne mooy mbaa mbaa yàllaam la ah maanaam Mujaahid ca la bokk ak Taawus nu Kaysaan al-Yamaniyu Ataaw nu Abi Rabiix ca la bokk juróom ñi ñoo doon akaabiru ñu gën a mag ci taabixiina yi ñoom la seen tur di tasaaroo ci téere yi dégg ñu naan mu tawalaat yi boo demee ci mu tawalaat yi fekk ñu ngi ci namu ñi ci ci maanaam ci seen seen seen seen xam-xam yi moom lañ jëlee ci téere diine yi buñ ci namm rek foo ko dégg ci téere rek al mutawalaat rek ñu dañ ci namm ci xeeti fànn yëpp ci seen diggante googu Abdullah ibnu Abbas ak juróomi kàngaamam yi mu formé ci la imaamu Saafi yu nag fondé ngiram ni moom màkk yu la moom nag tabaarakallaahu ba ibnu Abbas nekkee Abdullah ibnu Abbas nekkee di géej guy fuur bu xamul tefes ci xam-xamu hadis nga xam ne bokk na ci hadis euh, yu bëri yum solo ah moo tax masaabu imaamu Shaafi'i yu nekk daanaka xolamaawam yi xolamaawu hadis la ñoo ca gën a bëri ñoom mu haddisina la ñoo ca gën a bëri kon ñii looloo waral tey moom Shaafi'i yu fi mu tànkee mi ngi tànkee ki nga tànkee nekkoon Makka Malik tànkee ki nga tànkee nekkoon Madina mu des nag nga dem Kuufa mbooloo mi yonent bi génn àdduna ñu dem Kuufa Abdullah ibnu Mas'ud dafa demoon Kuufa dégg nga ca la demoon ci jamonoy xilaafa ak Seyduna Omar ibnu Xataab Seyduna Aliyu dégg nga ci jamonoy xilaafa ak Seyduna Ali nekkoon Kuufa moom Abdullah ibnu Mas'ud su ko defee tamit imaam Aliyu dafa demoon moom tamit Kuufa ba ci waxtu xilaafaam gi nag lay door a dellu si war a toog fa tabaarakallaahu nekk imaam nag di jàngale saytu xilaafa gi ak xare yi Abdullah ibnu Mas'ud nag nekkoon koo xam ne kéemaan la woon tabaarakallaahu moom tamit ci xam-xam mu nekk fa tamit moom tamit di jàngale foofa ca Kuufa diggante Iraq ak Kuufa ak jàngale xam-xamu sharia ak tafsir ak hadis ak usul nekkoon kawteef ci kawteefu yàlla yi ci wàllu fite nekkoon ku rëy xel nekkoon ku juble xel taalibeem yi ñu bëri lañ alxamatu mi ngay dégg ci téere yi muy alxamatu alxamatu mu xaysin ca taalibeem yi la ci diggante nag taalibeem yooya ah, ci imaam Abu Hanifa mi taabiix yu fondé ma ñooy kon moo waral tamit wuute day xam ak ñoom ñu nekk Kuufa ñu nekk kon Madina ak ñu nekk Makka ña demoon Basra gannaaw bi yonent bi génnee àdduna mooy Abu Musa al ak Anas ibnu Malik mi doon mindaanu yonent bi ñoom ñii ñoo demoon tabaarakallaahu Basra boo jëlee nag maanaam mu dem Basra di fa jàngale ku mel ni Malik sax fa maanaam euh, kon Abu Musa al di jàngale toog fa di jàngale ci taalibe mi ci la Xasan al Basri yu ngay dégg bokk nekkoon njiit ci xam-xam su ko defoon nekkoon tabaarakallaahu xamoon njërëm boppam sax moom Xasan al Basri yu waaye nag màbbu na déggatu ko daanaka gannaaw bi ñeenti ngir yi fenkee rek ci la njërëm ma ko defee nag léegi nag ca la ca la la nekkoon noonu ca ca ca jàngale ma Ah, ah, ca loola nag ca lañ nekk ca ngiram mooma fa la ko fondé gannaaw si nga ngiram ma dem léegi nag eh, noonu lañ demee fa lay demee maanaam Omar ibnul Aas fekk si ko ak doomam ji Abdullah ibnu Omar ibnul Aas yi ñii dem ba fuqahawu sab ak génn ca nga xam ne dañoo goreel xeeti xam-xam yi di ko waxee ñii ñoo fa nekkoon ca Basra ña demoon Saam nag gannaaw bi yonent bi gënaat na mooy Muaaz ibnu Jabal léeg-léeg maanaam mu dem léegi léeg mu ñëw ak Ubaadatu bnu Abu Darda ak Muaaz ak Ubaadatu ñoom nekkoon nañ ca Palestine Muaaz ak Ubaadatu Palestine lañ nekkoon Muaaz nag nekkoon kuy jàngale alquran Ubaadatu nekkoon qaadi xattekat Abu Darda nekkoon Dimishqa ci réew tasaaroo gi ñu mu waral tey nag wuute nekkee Madina fa njëkk a taalif Muwatta mooy ki njëkk a taalif ci xam-xamu hadis su ko defee ba nga ko taalifee Muwatta bi amirul muminin ka fi nekkoon mooy Haruna Rashid ne daal nañ indi téere bi dañ koo indilee mu ne ko sa téere bi dañ koo war a taf ci kaaba gi wax ko wax yooyu mu ne ko dëpp naa def xam na yoo xamee ne nii man dajeeguma ak moom jox ko gàngunaay mu toog ca su ko defee nag mu ne ko indi sa téere bi Malick indi ko téereem bi mu ne ko jàngal Malick di jàng ba ca uh, maanaam Malick di jàng muy déglu mu jigi Malick ne ko amirul muminina xam-xam dafa war a kawe mu ilmu yaxlu wala a alayhi nga war a wàcc sa gàngunaay gi comme man maay jàng man ma toog ci yow nga toog ci suuf Malick ku am fayda la ku am dignité la personnalité ma nga Madina ah waaja wàcc ñoom réyu ñu woon jàng commencement ca mu watta ba mu jeex mu ne ko sa téere bii dama ko bëgg a xaj ci ridooy kaaba gi wax waa lislaam bi yëpp ñi bàyyi téere nekkoon yëpp di xattewoo sa téere bii ndax doy na sëkk Malick ak maandoom nga ne ko xëpp naa def saxaaba yonent bi dañoo bëri te tasaaroo ci réew yi wax naa la ko léegi juróom benn réew man dajee naag ñoom luñ dajee hut waaye ñoom tamit dajee na ñoom man lu ma dajee hut kon loolu xëpp naa def boo defee nag mu bàyyi ko gannaaw si gi nag tabaarakallaahu taalif yi tawat tawaalif commencé ñëw gis nga Buxaari yi ñëw gannaaw si gi tabaarakallaahu muslim ah, tirmisi yu abu daawuda ibnu maaja nasaayi juróom benn téere yi ñooy yi gën a tabaarakallaahu Euh, ñoo gën a wér ci téere xaddis yi su ko defee nag kon nii moo waral xuute gi mu jël nag ku mel ne Ousmane ibnu Abil Aasi as-Saqafiyu bokk ci ahlu taay bi sahabi yu bu màgg Anas ibnu Malik sahabi yu bu màgg di mindaanu yonantu bi su ko defee xuutee ga ñëw moom nga dégg ñoom ñu ne ah ku nekk ci weeru koor daal bu xooree xooram nga du ko lor kooram ngaa gën dogam nga Abu Hanifa ak mbooloo ma déggee ci wa an tasuumu xayrun lakum ji ruxsa rek la ak nga gis ko mel ni Saïd mu Musayyab ak seen déggin ya maanaam yuridullahu bikum muy soxlaa du bikumul xusra xilaaf bi commencé ixtilaaf gi nag am ci seen diggante yi moo tax boo demee bu la waaye waxatee farataay njàpp ñaat la li ko ci mën ngir li ko Maalik jàppee muy juróom-ñaar du sa bokku ci saafi yu de du ngi dem Abu Hanifa du ngi dem Ahmad de. sangum janaaba ñaata la nga ne ci mën ngir bañ ca xuutee xuutee ci reen di wax bisimilah yi gàkk ko fàtte xuutee ci sangum janaaba ma farata yaag ponk ya xuutee ci asaka yaag we war a génnee xuutee ci xaj màkk ponk ya xuutee ci tabaarakallaahu waajibaat yaag mustahabaat ya demeet loola mu ci ñëw xuutee ci jihaad ci sëy yi xuutee ci xattee dereet yeeg ci miraas xuutee ci masala yu dul jeex waaye xam nga lii lépp seen wuute ya mosta taxal fitna kenn ku ci nekk rek nangul nga sa morom sa morom tamit nangul na la waaye kenn mosta yëkkati baatab kéeféer di ko yóbbu ci sa morom mbaa ngay jël baatab biddaa di ko yóbbu ci sa morom yooyu yëpp nañ ko bàyyi fexe ñu bokkul ñi bokk ñi xas bokk nañ dëgëralante tegante dënn joxante xol bëggante soppante te yàlla tax loolu moo mën a yóbbu jullit ñi fu kawe kawe kawe moo mën a yóbbu tamit jullit ñi tabaarakallaahu fañ bëgg a yegg kon gis nga ko ahadis yi ñëw ba ko yonent bi wax wax naa la ko kenn ku ne ci saxaaba yi tabaarakallaahu ak niñ ko niñ ko jële ñu commencé nag di tadwin téere hadis yi ak téere fiq yi ci jamono safaahu ibnu ali mooy premier buur ci buuru bani abbas yi moo fa njëkk a toog su ko defee nag ñu commencé nag di boole taalif téere tafsirul quraan yi ah, ku mel ni imaamu malik wax naa la ko taalif muwatta abu abu sawri nekk ca kuufa moom tamit noona eh, noonu imaamul awsa'i nekk ca saam demeet kenn ku ci nekk def say téere ñu boole ah, di ko defee tamit nag gannaaw si gi lay Buxaari yi du ñëw imaamu muslim tirmisiw abi daawuda imaamu nasaayi ibnu maajaha téere yëpp Buxaari yu moo ci gën a wér muslim ñëw tirmisiw door caa tegu sunu na abi daawud door a ñëw sunu nasaayi door a ñëw sunu na ibnu maajaha door a ñëw juróom benn téere lañu tuddee maanaam kutubu sixa yi ñooy téere yi gën a wér ci ci ci ci mbooleem maanaam xaddis yi loolu ñëpp ci dëppoo su ko defee nag lii moo fi nekkoon ñu jël hadis yi boolee ko noona gannaaw bi nga xamee ne ña koy solo solo nañ xadiis yi jële ko ci yonantu bi boobu bu waxee rek kenn ku ne ak li nga mokkal ah firi na xam ñoo xam ne dañoo siiwee hadis ñii fi ñii siiwee tajwid alquran rafetal ko ñii siiwee tabaarakallaahu Euh, euh, dagale xadis yi yonantu bi booba ñi siiwee woon tajwid xam ne ñoo dàq tajwid alquran gannaaw bi nga xamee ne abu aswad dooli wax naa la ko moo ko tomb gannaaw si gi taabici yi bu ñuy tuddee euh, xalil ñëw tamit maanaam indi xisib yeeg ruboox yeeg sumun yeeg ya ca aju ba yooyu yëpp mat gannaaw si gi nag juróom-ñaari njàngin jàngkat yu gën a siiw gën a mën a tajwid alquran gën koo rafetal feeñ ibnu kasir mooy si jiitu naafi mooy ñaareel ba asim abu amrin ibnu amir ak kasaayi ak xamsatu juróom benn ñi ñooy waral juróom ñaari juróom ñaar ñi kon waral juróom ñaari njàngi ni ci alquran nga dem ci baat bi ñu ne temps la mun a ñu ne la mun a la ko ñuy jàngee demeet waaye mooy juróom ñaari njàngi ni alquran mënu koo génn mukk yëpp ñu ñu ko loola kon ñi ñooy juróom-ñaar ñi gën a siiwee tabaarakallaahu ci njàngeenu alquran ak la ci xaju naka noonu tamit noonu lay continuer di dem gannaaw njàngeenu alquran yi am na ñu ko ñu ñu siiwee firi alquran ci jamono yonent bi ñu ci gënoon a siiw ci firi alquran fukk lañ Aboubacar moo ci dàqoon a firi alquran gannaaw si Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou Abdoulaye ibnu Masoud Abdullah ibnu Abbas Ubay ibnu Kaab Sayd ibnu Saabit Abul Musa al Ashariyu Abdullah ibnu Subayri ñii ñooy fukk yi dàq firi alquran ci saxaaba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom ñu ne ñëpp nag ñu ne buñ dajee ka ca dàq firi mooy Ali ibnu Abi Talib ak Abdullah ibnu Mas'ud ak Abdullah ibnu Abbas ñoom ñooy nga sax seen njàngaleem firi ma moo continué. ci saa ci ci taabixiina yi di ñëw ñoo jàngal juróom benn ñi nga xam ne tey ñoo juróom ñi nga xam ne ci taabiin ñoo ci dàq firi alquran di Saïd ibnu Subayri Ikrimatu ak Abbas ak Mujaahid ak Ataawu tabaarakallaahu taawus ibnu kaysaan euh, al al yamani yu juróom ñi ñooy ñi seen téere yi tasaaroo ci mu ñu koy wax ñoom mu tawalaat yi ci mboolem xeeti fànn yi ñi mën al quran lool ci mën koo firi ci taabihiin yi ko mën koo tëjwit mën koo firi firi moo xam ne tamit tabaarakallaahu firi mu rafet la kon al a ngóog ak cosaanam la ak nañ ko toppeek nañ ko doon toppatooyee muy dem tabaarakallaahu muy dem ñu topp yoon woowa xadis fi ñëw yonent bi sallallahu alayhi mbam ko daan wax dafay wax ne bu kenn bindu yéen ñëpp dee leen mokkal rek waaye xeer ya leen jiitu woon li leen xalak yëpp dañ daan bindu seen waxi yonent ak seen waxi borom léegi léegi ñaari wax ya jaxasoo ñu ne yonent wax na fekk yàlla wax léegi léegi ñu ne tamit ah maanaam tabaarakallaahu yàlla wax na fekk yonent ba wax mu ne kon nag dee leen jël hadis yi di ko mokkal waaye bu leen ko bind ñooña tey ña ca gën a bëri hadis yuñ solo mooy abi hurayra demeet ci la ñu bokk ña ca gën a bëri lee abdullah ibnu omar ibnu xataab demee ji demeet abdullah ibnu omar ibnu asi demeet sayyidatuna aïcha noonu la ñuy demee ñoom ñii ñëpp kenn ku ci nekk boo demee ci téere yi limal nañ la ay hadis ñaata hadis nga solo nam toll yëpp mi ngi ci waaye noonu lañ ko ñii daal ma limal la ñoo gënoon a bëri ay hadis yoo xamee ne ni solo nañ ko ci jamonooy yonantu bi sallallahu alayhi kon lii mooy sariya tabaarakallaahu ak cosaan la xambaale fiq di xam-xam bi gën a seer ci xeeti xam-xam yi nga xam ne sax yàlla dafa ne moom fiq xeeñ naa ko munaafiqiina yi ndax yàlla ba ne walillaahi xasaa'inu samaawaati wal ard lu mu ca teg walaakin al munaafiqiina laa yafqahuun kon yàlla ndàmb ci asamaan ci ay njëriñ ndàmb ko ci juróom-ñaari suuf yi ci ay xéewal munaafiqiina yi mënuñ koo dégg kon boo xasee nekk tan te weddi xeej la ci nifaaq moo tax boo xasee nekk weddi kat rek lu taxamati ak dégg gis nga ko tamit yàlla ba am ne walillaahi al wali rasuli wal muminin ba laay jay jeex dafa ne walaakinal munaafiqiina laa ya'lamuuna tedd nga yàlla ji li muy rëy rëy ak yonantu beeg tedd nga juddit ñi munaafiqiina yi xamuñ ko kon nag euh, fiq xam-xam bu foor la ku ko yàlla jox jox na la lu rëy rëy rëy ku yàlla xeñ xeñ na la lu rëy rëy rëy ndax ci ngay mën a xamee ni ngay pratiquer sa diine lu koy wéral ci jamono yonent bi nag fukki nit ak ñeent ñoo dàqoon fiq ci saxaaba yi waaye du tax ñu te leen fuqaawu de booba baatam saxaaba moo leen muur waxoon naa la ko ki ci dàqoon fiq mooy Aboubacar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou Seydina Ali ibnu Masoud Ubay ibnu Kaab Abdourahman ibnu Awf Seyd ibnu Sabit Muaz ibnu Jabal Xufayfatu ibnu Yamani ñii ak Amar ibnu Yasir Abul Musa al Ashari Abu Darda Salman al Farisi ñii ñooy ñi dàqoon fiq ci jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne kenn mënta xëccoog ñoom ci masalaay fiq su ko defee ne kenn ku nekk tabaarakallaahu ak mayu rëy yi la yàlla may nga am ko te sa morom amu ko gannaaw si gi nag ci lay fuqahaawu sabaa yi ñëw buñ ko waxee ci téere yi rek fuqahaawu sabaa ñu ci ciy namm Saïd ibnul Musayyab taabiiyu la tabaarakallaahu euh, imaamu Nawawi tudd na ko ah ki ci na ñaareel bi mooy Qaasim ibnu Muhammad Qaasim ibnu Muhammad Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar ñe ñetteel ba mooy Urwatu Urwatu ibnu Subayr ku ne dégg na ko Urwatu ibnu Subayr ibnu Awaam keneen ba mooy Xaarijatu ibnu Saydin ka ca tegu mooy Aboubacar muy Aboubacar ibnu Abdurahman ibnu Awf keneen ki mooy Salman ibnu Saar Yasaar juróom-ñaareel ba nag mooy Abdullahi ibnu Abdullahi ibnu Abdullahi ibnu Mas'ud Abdullahi ibnu Abdullahi ibnu Mas'ud juróom-ñaar ñii ñooy ngay fekk ñoo dàq fiq ci taabixina yi ñoo jàngal ña jàngal tey ñi fi nekk tey ay fuqaawu ci kaw suuf kon sariya ngoog ak nim tasaaroo woon ak nañ doon balaloo atte yi fii la jaar wuute bi tamit fii la fii la commencé ba yonantu bi génnee àdduna rek tabaarakallaahu ci kanamam ay wuute am na waaye musta tax kenn jàppal sa moroom benn yem gannaaw si gi tamit ay wuute am euh, ba mu génnee àdduna ndax booba saxaabaam yëpp dañoo tasaaroo ci juróom benni dëkk ci ci ci ci àdduna bi ñenn ñu ne fa nekk di fa jàngale ñañ jàngal nañuy déggee masala yaak ñeneen ñi fañ ko jàngee duñ nekk benn ndax daara yi buñ wuutee rek déggee ni wuutee ba léegi sax euh, boo demee tey ci daara majalis yi baat yi nañ koy firee boo demee ko yeneen daara duñ bokk nañ koy firee boo te terewul li ñuy wax ñëpp maanaaya benn rek la wuutee gi ci ay furoox rek la boo demee tey ca ndar nañ lay firilee baat yi buñ lay jàngal duray doog maqaamaak euh, soxaraawul jaahiliya ak ak ak ak demee ni ak ak ak demee ni maanaam xalil boo demee Kaolack firi ma dana wuute boo demee Tiwaawoon firi ma dana wuute boo demee tamit ceneen ci dëkk yi firi ma dana wuute waaye ànd ak loolu lépp na bu ñu waxtaanee rek dinañ mën a juboo yenn furoox ya ñuy wuute tamit yu ñàkk solo lay doon su ko kon nag yéen dëppoo nañ ci ànd. yañ dëppoowut ñu jéem ci am maslaa waaye daal diine ji dugal ci millions yi ca bokkut moo gën génne ci kenn ku ca bokk téeméeri junne yoon kon nañ xiir ci loolu te góorgóorlu ci dëppale benn yi moo ëpp solo fuuf nga takk say rajo di xas ay nit xas koo xam ne génn na àdduna bu yàgg nga koy kéeféeral di ko wax lu bon moom doo ko mën a baalu àq ndax dee na kañ ngeen di dajee sa kanam borom bu ëllëgee àq yooyu yëpp mu topp la ko sa julli yi ngay jàpp ne moo rafet ak sa alquran yi boo ko ko fayee ba mujjee ba muy tuut bu la yàlla yërëmul nga dem safara te lu yàlla ñu ci yàlla musal xas li muy bon bon sax nga def ko kuy du moo tere man naa xam moom bis na jot nga jéggalu ko mu jéggal la waaye ki xas dee yay dañ lay wax ci moom sax dañ la koo nett yi rek yow mosoo koo gis mosoo gis ku ko gis ñu nettali la ci moom rek te li ëpp ci nit ñi kàcc bu ñuy nettali ni maam Khalifa daan wax suñ soppee yokk buñ bañee wàññi tax yow nga jël loola bind cay téere xas ca ay nit ayibal leen ca te mun naa am fa muy waxee déggoo ko te yonantu bi nee na woon na ngeen tudd seen rafet rafeti néew yi te ngeen fegu ca yu ñaaw ya kooka na yàlla ñoŋeel ko tabaarakallaahu mu dee ngay takki rajo taxaw ci place publique yi di ko xas di def ay téere ngir pëngatam àdduna miñ lay jox loola sax buñ la ko yéexee jox dootoo bindati buñ la ko yéexee jox dootoo waxati waaye fokk rek ngay wax di yónnee di ko envoyé ñoom ñu cay jot ba ne na yaa ngi leen liggéeyal ngir pour nga tam ak moom du la jëriñ tus mag ñi seen jëmm yi yàllaa ko tooke ku leen laal am ko nañ ci bàyyi xel poñetam àdduna mi kenn du ko jëndee mbugalam xalaaxira ëllëg mag ñi kenn gënu leen a bëgg yàlla kenn gënu leen koo xam kenn gënu leen koo sopp kenn gënu leen koo mën a topp seen du du lépp fa lañ ko jeexal te li fi nekk ka néew ñoom ñun dañ leen a war a jërëjëfal jaajëfal leen njukkal leen waaye ñun xamu ameeluñ leen ay xas àllarba lañ leen ameel ak ay ñaan rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu lañ leen ameel ñoo bu taxutoon nag mag ñi duñ fëri ji mag ñee ñëw fexe ba jël ñu ne lii mooy baax ñu ne lu tax ñu ne tomb gi lii mooy siin ndax dafa siin comme sayu ñax xoolal miim dafa dafa dafa dafa dafa wërngalu ñu ne ay ngémmentalu dafa niru gémmañ ak till ki fexe ba nga xàmmee loola mën a fer iji mën a boole te baas boo mën a am ba génn réew mi dem jàng ñëw di leen weddi ñoo la jox baas ba nga fay dem ñoo la jàngal alquran ñoo la jàngal téere yi ba nga am baas door a mën a dem feneen ni da ngay jàng ñu lay jox pangel nga ñëw di dal seen kaw foo ko teg te mag ñi nag xamul lu tax man de ba ma juddoo gut ba léegi damay dégg ñu ne Sénégal quatre-vingt-quinze ñooy musulman yi ci jullit ba ma juddoo gudd lañ ko commencé lim ba léegi liñ fi nekkee waaraate lépp ba tey ñu ngi ci quatre-vingt-quinze jàkka yi fi nekk contre mag ñi ñëpp ñu ngi ci quatre-vingt-quinze waaye mag ñi ko jëlee zéro ba indi ko quatre-vingt-quinze ñun mënuñ cee dolli benn chiffre ñaan lañ leen ameel ak sant leen gërëm leen waaye amaluñ leen di leen jéem a xas ak yi. léeg-léeg sama dégg ku lim ne ah quatre-vingt-dix-sept ma ne ah waaw kay ngeen ngeen yokkal ñu sax ñaari ñaari tomb ñaari siifur waaye quatre vingt ba tey bañ ko doogul ba léegi yow loo fi def kon tabax fiy jàkka xasteeg coow lu bëri yeeg financement yeeg coow li yëpp génn ko quatre vingt ba léegi ki ko jëlee zéro ba indi ko quatre nag kooka ñaan lañ ko ameel ak njukkal ko kon yàlla nañu yàlla fayal suñu mag ñi yokk seen leer taas ñu ci seen barke tabaarakallaahu dimbale leen mission bi ñu fi bàyyi woon muy gën di continuer jëm ci kanam yàlla benn la xolu jullit ñi tappe ko daq saytaane ci barkeb sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu